jërëjëf jara maa ngi lay nuyu di la fay mhm. di nuyu mbekk internetu fekke tv yep cokkeer cokkeer tv mhm. ñoo ngi nuyu ñëpp di bëgge ñëpp di amaat mbégte bu baax a baax mhm. ak contentement di jàkkoolwaat ak mbokk internet yi di nuyu waa lambaay ndax man lambaay laa cosaanoo waaw lambaay waaw mooy aale baaba kumba naar doxal fatir ma des njob ku guy ndëndeeg ndaare kaddu palukaay fofu la sama mami dan daan fale buur yi waaw man sama mam jara mo daan far buur yi moo daan fal buur yi buur yi waaw mhm. diggante guy ndëndeeg kaddu palukaay mhm. fofu la sama mam daan falé buur yi man lambay lambay la bokku ci deretu noble nak mhm. xam sama bop xam sama valeur dama duglu sama yoon nekkut duma wax waxu jàmbur duma togn duma jëw duma lek alal julewut lewut deug la koku lambay lambay la deug la di nuyu ñepp Mm-hmm. ñu jëm ci nag ci combat la 24. le 24 novembre diggante Modou Lo ak ki nga xam ne moom moo di Siteu. Mm-hmm. combat bi bërki démb jara lañu ñu gis arène nationale coow li daa bari. bari na trop. waaye noonu la. Mm-hmm. ndax mbir bu dee jub si. faaw coow li bari. walaay dëgg la te combat benn toll bis benn toll. ndax mag ñi dañ koy wax naan bis du tuut borom ba rek lay tollool. walaay dëgg te nat bu mag. ci bis bu mag rek lay dee. kon bis la boo xam te ni lu ci waay def rek. Mm-hmm. wala lu ci waay def dañuy xam ne bis benn toll. dëgg la muy la ñu gis arène nationale nag coow li bari na vidéo bi viral. Mm-hmm. coow li bari na de coow li bari trop. ku ne di ñu woo. appel di jóge fu ne appel yi ne. am na ci mbër mu mag sax ndeysaan mu war a nekk ci préparation moom. Uh-huh. daa bàyyi lim doon def daal di ñuy woo. ndeysaan dëgg la. ne yi nangam nangam. nga xam ne te mbër la boo xam te ni pare woon na. Mm-hmm. mbër la boo xam te ni dafa mel ni. affaire bi daf ma jaaxal. waaw mbër la boo xam te ni daal. Hmm. ci événement bi la nekk. waaw pare pour bëri vingt 24. Uh-huh. borom moto bi doo ko wax ma avancé tuuti jara. waaw waaw. ah oh, moom ma mi ngi mel ni sama bos bi de. dégg nga lu ne moom <laughs> ah, kaka ah. moto xaw a paal bis la bis la boo xam te ni. Hmm. bis bu ñu bu Sénégal fonk la bisu njàmbaar la. ba pare li ñu gis maanaam dafa éphémère quoi dafa dafa vif dafa gaaw. manam dafa gaaw mais mais nono ni tollu bis ben tollu neena len nak jël bi waaw wala lamb ji ko xef do gis jël bi ndax bis ben tollu deug la te benen mbeur mi na wacc na jog na ndaki mbokam lako lamb ji jaral est ce que duñ tot kasi tay jotna parce que sénégalais ñu ci bari tay ñu tégal leen réellement que vidéo bi li ci am waaw ñu tégal leen vidéo bi exactement début bi fin bi waji lam fa doon def ñun suñu cadre yi doon fën ci vidéo bi wala bok ñu boole ci sax aussi tamit li waji doon wax non nañ leen nañ leen ko tegal wala tamit ñu bàyyi ba lundi. lundi ba lundi bii di ñëw ñu tegal leen vidéo bi àjjuma ñu bàyyi ba lundi ñu tegal leen vidéo bi Sénégal yëpp toog di xool di jàkkaarlu vidéo bi yaa la jaral la ma gis yéen na ma de waaw dem naa fu ne dugg naa kër kilifa duune gu ne jàkkaarloo naag sëriñ bu ne waaw waaye li ma teg sama bët mësuma koo gis lu yor bakkan lu ñuul lu yor bakkan lu ñuul yi du ci wax sama yoon néew ci. addi addi tojal nag. non du ma toj lu man nag man nag man damay bëgg su may wax waxtaan ak yow parfois dañuy toj benn par benn pour sénégalais xam ni li ñuy wax nii dafa dañoo bëgg sénégalais bàyyi xel xam ni combat bi dafa mystique. lu yor bakkan lu ñuul li daal jarut koy wax waaye lu ñuul kukk la. waaw xamul ah. benn melo la. benn melo la benn melo bu ñuul kukk. des fois nag sëriñ si dañ la koy digal ne ma wutal ma nangam bu ñuul kukk doon benn melo bu mu am couleur bu am dara lu ko rax. mais loolu lan la. loolu mooy meles. meles. Ménès boo ko déggee maanaam jël bi Modou Lo ak Siteu la 24 ku xef doo gis jël bi. Ah. waaw loolu loolu loolu benn melax moo koy waral. moo koy waral mooy melax. mooy melax waaw. loolu ay tegtal la yu sëriñ di joxe ay tegtal la yu sëriñ di joxe. Mm-hmm. tey jara dinaa dugg ci suwaaru sengooru mbër. sengooru mbër. sëriñ bi koy defar nu koy defaree. waaw ndax sengoor dafa am solo ci làmbu. Mm-hmm. kooku tegtal la. bët yi lay gis. koku dañ ci muslu moy sengor yi ñuy talal sengor yi ñuy talal do fa do gis mbeur dugg ci arène nationale mm-hmm. dal di talal yëkëti la sengor bi ca kaw waaw djublu ñent xibla yi dal di wax booba mu ngi lemu di dàq setané mm-hmm. li ñaaw luy bët moo tax yoon bëri am ñu gàllaaj loolu wax ju yàqu la dëgg la sengoor buur lañ ko daan takal bu waré xaré ji mm-hmm. sengoor bur lañ ko daan takal bu waré xaré ji boo am na sengoor yoo xam te ni boo bal du la balu fetal du la japp jàpp ah? paaka du la jam doo dee ci accident. Mm-hmm. am na Senghor yoo xam te ne dañ la koy defal Senghor dafay aar lu bari. dëgg la boo waralee en général amut mbër muy mës a dugg arène nationale teg ci tànkam. te mm-hmm. jubluwut ñeenti xibla yi. Mm-hmm. daal di tàllal Senghor gi am lu mu léemu waaye yoo xam te ni daf koy léemu daal di jat dëgg la. mooy Senghor nga xam tin mom lañuy talal parfois sax mbeur di tuus talal talal ko mom boo koy gisee Gris Bordeaux en général dama bëgg jara image bobu yama ci do yaay jinne cameraman yi nga xolal ma fi giri Gris Bordeaux tàllale Senghor gi wala benn mbeur di ci wax di lemu nga deg ko kat nga gis gem gi nimuy kene to too di léemu Gris Bordeaux wala keneen ak keneen ci mbeur mu tàllal Senghor waaw mom day lemu day am ay bat yo xam te mom lay jatt diko wax pour yàlla musal ko ci beut yi musal ko ci musiba balaa hmm. musal ko ci nit ñi koy seetaan ak jinne yi wala xam nga ne la 24 jinne yi sax dañuy ñew ci làmb ji. làmb làmb làmb ji ne yëpp seetaan si làmb. am na ku ma am na ku ma waxoon benn archive ne woon ma combat Ama Balde Modou Lo jinne dugguñu Modou Lo dafa jat ba jinne Ama yi dugguñu. déggoo li ma la wax. làmb bi jinne dañuy duggam dañuy taxaw. làmb jinne jinne dañuy ñëw di seetaan si làmb. waaw. ñëw arène nationale ñëw seetaan seen mbër yi am mbër comme yow di werante làmb. dëgg la lii kay maa la ko wax. dëgg googu nag bu ko sëriñ di def guro la koy defaree. guro waaw bu fasee juróom-ñaari fas yi. guro yi ñuy yëy. waaw Senghor juróom-ñaari fas rek lay am. waaw waaw. bu fasee juróom-ñaari fas yi. Mm-hmm. tufli ci Senghor gi. Mm-hmm. jër guro gi sex yëy ba guro gi mokk mu muucu Senghor gi tooyal ko ci. Hmm? waaw. gémmiñ la koy tooyale. waaye gémmiñ la koy tooyale muucu ko. mooy Senghor boo ko tàllee lu weex li lu rouge loolu. lu rouge loolu ngay seen loolu guro la. ok man nag fuddal laa ko tegoon. loolu guro la. loolu tay bu takkoon sa yére boo doon fóot fii ba ilaa yow mi gindi dañ. dootul dañ dootul dañ ci serigne bi di def di jatt di wax di def di jatt bu paré mo ci gura gi sa ngor gi xonk moy xonkay bobu ngay gis waaw légui bu ko joxe mbeur mi nako demal bo demé dang koy sanni na mbeur yo xam bu ñuy tous dañ koy sanni diko jat diko xëccat di jatt di xëccat motax lambu tarikh la jara lambu ciosan la wallahi deug la jara lambu suñu patrimoine la ñun ñoko mom kenn jégganiw ko moy suñu sport national lu maam yi daan def bu ñu dajalee gerte gi. Hmm. comme fii ñu toll tey. Hmm. góob dugub ji. Hmm. déq gerte gi. weer ko def ko ay bàcc ñu yàgg xam bawal bawal yi wala wala làmbaay wala ñenn ñu jógee Louga xam nañu. dëgg la muy bàcc gerte. bu ñu ko bàccee jigéen ñi daal di dem ci àll bi comme naag tàngoor wi nga seen. ñu daal di koy bees fu ne bu demee ba ci bees gerte gi yàlla suñu borom day dogal ngelaw liy ñëw. dëgg la nga gis mu mbooyee tàng lool. nga gis ngelaw ngelaw liy tàng loola booba ñu ngi ci bees bi loolu suñu borom moo koy def ñu bees gerte gi bu ñu beesee gerte gi daal di séparé gerte gi ak ngooñ mi hmm. dajale loolu nag ba nga xam ne yëpp yóbbu nañ ko ci sàq mi hmm. mbaa ñu yóbbu ko ci magasin yi boo dee gëm sàq maanaam ca ginnaaw dëkk ba lay ne hmm. ca la ñuy denc dund gi baaba mi may wax xam ne ko ma ngay ree ah. loolu xam na ko moom njàmbur njàmbur la xam na ko lu Louga la jógee fa la ñuy denc dugub jaag gerte gaag yooyu fa lañ koy denc ca ginnaaw mën nañu at ma sax du jeex mooy sàq. Mm-hmm. wala ñu denc ko ci magasin yi bu ñu defee loolu nag. Mm-hmm. ñooñu noppi nañu ci nawet bi. nawet ba mooy. léegi nag ci la ñuy tëgg mbappat yi. waaw sàjj bëri yi am. Mm-hmm. yeneen yéen ci bopp yu ci bàyyi am. nit ñi di bëre fii ñi di def ci ci la foofu moo xam ne làmb dafa neex booba dañuy dajale. dafaa ñu teg bari ko gerte la mag ñi daan teg. ca jamono mbaa kilo bari dugub. dugub waaw. def yoy ci ñi ñuy bay boobu lañ daan def motax lamb mu nekk lo xamanteni lu lu lu nice la cufaane la sama papa mam gor gi ndjay per njugatin sa lambay nga lambay biram be nga ndur ma ci degen ma ndondal lu reey la ma jara bak may li ci waxu ñay no xolal suma daano mu tas final du ko fajj yalla def nako sama doolay sama xarit suma jappe ba lamb ko sama xel dal hmm. mu ne attention comment amna lu fi xew dina ko wax sogo dem hmm. ndama yogul ndama fofu la sawi ci sogo dem ku sàccan bëgg a raw mbaa nga def dégâts bëgg a dem mm. express di la dàq roppalaan tiim ba di la jàpp sooyee boo taxaw te xam ne jàppes nañu la dégg nga ko maanaam bàkk tamit dafa moo amatul dafa commencé dee ci làmb waaw amatut ko si def léegi ay ñoom laasana la Moustapha de te c'est rare te dañ leen a war di di di di jàppale ci événement yooyu ñu ñëw takk téeméeri sër tàllal sengoor gi mm-hmm. poudre seen yaram ñu jàppale leen ñu bàkk góor gi maam maam père jugatin waaw yooyu yëpp am ndendeeg teeñ ak ndendeeg birima xam nga ndendeeg ma ca dameel hmm. maa nga cosaanoo làmbaay xam nga di indi say cosaan yoo xam te ni tey hmm. ay ay cosaan la lamb lamb cosaan la culture la mais léegi aar voilà aar xam nga ne tey séréer Siteu bu loolu woon 24 mu takk laar yi ah. daal ki moo moom it ku mën aar la Siteu waaw waaw day day dund aar ku ko man hmm. la boo xoolee digganteem ak Lac de Guiers cosaan la dugg see te noonu mbër noonu la war def innové innové mbër dafa war di innové sax ci ëmb seen tuusa mi mujj yi tuusa loolu la seen seen def cosaan nga làmb bu ñu ko defee ci cosaan barke Sëriñ Tuubaa làmb neex lu ñu ko defaat ci cosaan hmm. ak président buy mën a toog nga ñu bàyyiwaat ñuy defaat cosaan te lu ñuy tuus dafa gàtt nañu yokk taawu tuus bi def ko 15 minutes ñu bàkku fecci. ñu indi cosaan indi cosaan. aar mën bu si te ñëwee indi takk laaru séeréer yi bàyyi. geenu nag yi. waaw teraxlaayoo sër ba sëru rabal. Hmm. dal takk lu ruus ba bari bi taw ca bopp ba. dal di wàcc yor béjjënu kooba bi wàcc ci tànk yi njóog. njóog mu sax sànq mu sax dàkk. wàcc ci tànk yi mu daju. laay dëgg la mais làmb yàqu na. ay li ñu gis. waaye la ñu gis jara. waaye la ñu gis daamel li la ñu gis <laughs> moom nga gën a intéressé moo ma gën a ñor. Eh, dafa viral nag moo yëngal actuellement moo yëngal. mais mais yëngal la. moo yëngal yëngal la mais mu tax maanaam du kumpa. waaye dafa am événement yoo xam ni bu ci ay mbir di am rawatina lu mel ni ñu gis keroog arène national ñëpp dañuy bëgg xam. Mm-hmm. rawatina dañuy bëgg xam ban camp la. camp u Siteu la wala camp wu Modou ndax la xew foofu arène national la ñuul la nga xam te ni moom la ñu jël. Mm-hmm. dugal ko ci biir gas ko foofu suul ko fa. Mm-hmm. image bu génnee dina yéeme de. non dafa doy waar jara mais làmb jee ñu toll. Hmm. mais est-ce loolu. ah jar loolu kay. bakkan roi des arènes jara doy caaxaan. Hmm. xale boo gis muy dugg ci làmb boo ko wëggee loo bëgg a doon mu la roi des arènes. walaay ci làmb. Hmm. te histoire da koy bind. Arthur nekkoon bis nangam ane nangam moo nekkoon roi des arènes ana ci sunu papa Manga do ba legi fayul ana Mahamed Ndao Tyson archive yaa ngi fi sen fi mhm. roi des arènes du du fay wala dafa nekk loo xam te lu neex ku kep ko xam mi ngi mi ngi dugg ci làmb day bëgg lool footballeur buy football da ngay bëgg jël coupe du monde coupe du monde mbeur muy bëre da ngay bëgg don roi des arènes loolu ba pare boko defé defee buntu day uppé wala dëgg la buntu yi day uppé wala dëgg la ci tay hmm. nga commencé xam nak nag ci dog kaas yi Comment Komanse fwoy. Komanse waw. Komanse tam. Waw. waaye cëy la ñu gis. cëy la ñu gis jaral la ñu gis daal nee naa le lundi laa koy jox Sénégal yëpp. nañu ko xaar waaw fekke TV. Hmm. dinaa teg vidéo bi. Hmm. intégral intégrale. Intégrale. waaw lépp loo xam te ni rek amna ci vidéo bi naa len ko tégal ko ma na bu dara du ma ci dagg dara. tay nak na len ñamala tout waaw il est temps. ci vidéo bi daal leen ci ñamalaat tuuti gën ko xoolaat koosaat ko tuuti. Mhm. ma génn naat waxaat daal leen koy ñamalaat noonu daal laa leen koy jàpp. bu ko defee yëf yi jeex. ñii dañuy gëm ñii duñu gëm. ñii duñu gëm mais ñoom am na ngeen di fëw biir am na ci ñoo xam ne leen lu am la. am na ci mbër mu mag it woon na ma bu préparé nekk ci bis. Mhm. jëm la 24. muy mbër mu mag war cee bëri moom it affaire yi woo ma ne ma nangam ak nangam ma expliqué ko. Mhm. ma ne waaw dégg kat na. waaw mbër bu mag. dëgg la ah. dëgg la loolu kay maanaam daal xam naa ne bis la mhm. ndax xam nga ni ci ñaari mbër yooyu benn sëriñ bu mag woo na ma ci sëriñu mbër mbër yooyu kenn. yow mi wax na barke alxuraan. ci la 24 ci ñaari sëriñ. benn sëriñ bu mag. woo na la alxuraan laa waat. du ma ko fene kon ñuy seetaan war nañu mën a gëm li ma wax une heure du matin jour bi vidéo bi duggee maa tëdd ba une sama téléphone sonné xool ma gis benn mbër mi sëriñam bi mu gën a xonq woo ma di ma wax ci vidéo boobu. non vidéo bi tiital na leen. wallaahi azim du caaxaan. tiital benn cas xam nga mbirum làmb la doo mën a wax. waaw làmb daal man la ma ca wax xam naa ko. yàlla ko wax daal mooy. yàlla làmb dafa doy waar. yàlla a naqaree xam. li ma waaj naa ma ku ne la maa la gën a xam làmb nekku ba dimaas waaye cey li ma gis. te chaque dimanche wala chaque làmb sëriñ Dioum. dëgg la. mais combat bi dafa am dayo boo xamante ni par exemple jaral ñaari kaa yi mbër mu mag bi la woo sëriñ bu mag bi la te kenn ku ci nekk ci ñoom kuy wax da ngay sentir ne bis bi am na fu mu toll am na fu mu toll dama ne mhm. jara bis bee ni toll mhm. la ay lay caaxaan mhm. te lu mu gën a jege si coow li di gën a bari waaw lii man maa la ko wax lu mu gën a jege coow li di gën a bari la 24 ndax am na coow ba pare coow bis bi na boppam wala dëgg la le 24 bu ñaari mbeuri dongalé hmm ay way ay bis. makat tay nak dama bëgg nga wax ci sa xarit papa ce vimo sa xarit papa ay promoteur muy Mansour Ba papa am sa xarit la yow sa paa waajuru góor papaay xaritu Mansour Ba loo mën a wax ci wa jambar yu tëgg bis tay fofu la bëgg ñu ñu ñu. wa jambar day ay jambar la ndax tamit nag xam ndaar bu demee ci waar wàcc. wàcc voilà. ma père Mansour Ba lu am ci làmb mérite na ko ndax papa ma ko liggéey ci làmb. Hmm. ndax père ba man bi ma koy xam faas laa ko xame hmm. mu yàgg sonn ci faas waaye boo waxee daal la man séeréer si laa doon supporté. ndeysaan muy père ba. père ba boo xam ne séeréer yi laa doon supporté manga deux nekkoon si bëmbër. Hmm. waaye Papa Sow moo ma indi faas. Papa Sow. waaw moo ko indi faas. mu nekk nit koo xam te ne nit ku baax la hmm. moom père ba nit la koo xam te ni mosuma ko fekkee fu mu meree wax dëgg ci yàlla sama xaatu papa la ànd nañu mos nañoo jëflante du benn ñaar am naa accès kër ñoom Mansour ba ndax papaam père ba yaa ma fa dugal man dugal naa la fa ànd naa fa ay nit yu bari dëgg la soo fa demee wax dëgg ci yàlla père bi def ñuy recevoir wallaay dëgg la jox ñu suñu wàccuwaay jox ñu hmm. la ñu moom père ba lu mu am Mansour ba lu mu am ci làmb rek mérito lu ko ndax papaam a ko liggéey ci làmb dëgg la bi muy jël ay dërëm ak mi ñaar dërëm di ko jàppalee mbër ba ba xamul woon ne sax dina am doom joo xam te dina duggaat ci làmb ba doon promoteur moo tax jëmbët fa nga wóolu dénkaane kala doy mm-hmm. dégg nga wax olof la waaw jëmbët fa nga wóolu dénkaane kala doy ajaratu ki ne ko way ki yaa culture maa ki laada damay cosaan dëkk xam naa ne ñu may seetaat dem ñu ne du gone. balaa dëgg te xale bu tuuti la. waaw question la a nuyu. bilaay maanaam loolu dafay wax comme bi ñu doon jëmbat di def lu baax ci làmb. Hmm. wallaahi talaay booba xamul woon ne sunu borom dina ko fayee Mansour ba ba muy dugg ci làmb bay tëgg làmb bay tëgg événement bu mel nii. wallaahi dëgg la. ko doon def pour yàlla pour yàlla rek tax. Hmm. nit la koo xam te nit ku social la. Hmm. moom Père Ba nit la koo xam te nit ku jàmbaare mhm. nit la koo xam te ni mën gis nit kuy sonn moom Père Ba ndax dama koo xam waxantuwu ma ko dama ko fréquenté xam ko jëflante ak moom walaay dëgg la parcelle nee naa la li muy ndaw ndaw wala li muy rëy rëy mhm. bari na ci bu guddee dépasse kër bari moo leen yor moo leen yor même Père Ba te du kenn ku ko xam walaay dëgg la ci sutura Père Ba ci ordonnance yi Père Ba ci dundukaay bi ak rafetaay maa kër yi xaru tabax yi nit la ko mhm. social nga dina ko social moo tax tey bu amee doom bu tëgg événement bu mel nii dañ koy félicité di ko wax ne ko njàmbaaru papaam la. Hmm. papaam a liggéey lii tànk papaam rek lay topp. des fois ah. di nga sa papa defar sa ginnaaw. Mhm. ba mu baax yow doom ji da ngay ñëw rek yeggale. waaye bul jàpp ne yow la bul kañu. mooy papa la. moom moo def lépp. liggéey ndey waaw comme man yoon. ci làmb ndey ku ma dékk micro rek sama bari na ci buntu yu bare bari damay dem mu tëju lool wala amaat ak journaliste mu tëju man su ñëwee su dugalee caabi rek mu ubbeeku. ndax loolu sama papa liggéey ci làmb. ma ko gis mu wax lu ñaaw. ma mhm. ko gis mu def lu ñaaw mhm. bàyyi bëri doon champion nag. sa papa bëri yu bari ci làmb te mosu koo bàq. Hmm. mosu koo yoo xam te dafay feeñ ci di wax man melu ni suñu waa dafa nëbb sama papa nitu kersa la man nag moom xam nga ne man damay wax yaay yaay yaay bi maay tuur bi <laughs> man sama papa ko xam-xam ko ci dal ko xam-xam ko ci yaru mhm. ak mu a ci la gis jox bi nga sama papa noonu la mel loolu ñëpp seen da koy ci làmb képp mhm. xam da koy seedeel ci làmb mhm. tey nag maa la tënk tey bëgguma la nga tekkee comme suñu émission fan yi muy demee tey dama la tënk rek rajo xela parce que xamna li nga bëgg yépp génnee génnee wo mais dañuy bàyyi ba lundi lundi nag mooy bomb bi. bomb bi mooy lundi mooy bomb bi. mooy bomb bi lundi ci la vidéo bi xaar. waaw muy vidéo bi sénégalais yi ñenn doon wax naan du dëgg. wala du dëgg wala kan la. ak hmm. kan ngeen bëgg a xam moo nekk. kan la ak la mu wax ak la mu suul la mu wax ak la mu suul lépp lundi la. Hmm. rendez-vous jara jaral lundi la. Hmm. di la nuyu bu baax. di nuyu sama benn xarit boo xam te ni kooku sama xarit la. Ah. nit mën ngeen di ànd jara mais du xaalis. wallaay dëgg la. te ànd bu dëggoo yàlla suma borom moo koy sàmmal ko moo koy téel ko dëgg la. te sama digganteeg Serigne Samba Ndour Touba nit ku baax. laay dëgg la. sama xarit la kooku duma ma. di ko sant. Mm-hmm. ndax nit ku baax la. Mm-hmm. nit la ku nitee. Mm-hmm. ndax daraja ji ko borom may. alal ji ko borom may. te chaque fois mooy yëkkati téléphone am saa bu ma di may woo. wallaay dëgg la. kooku sa nitu bopp la. Mm-hmm. sama nit la nit ku baax. Mm-hmm. nit ku man nitam. Mm-hmm. moom sama nit la kooku sama waay la maa koy ñaanal fa mu nekk. ci Touba ñaari kafteer yàlla suñu borom defal ko jàmm. ko barki démb gis nañu Balla Gaye 2 dem seeti ko waaye moom lu mu am mérito na ko. moom it ndax daf ko liggéey. jërëjëf Jara di la nuyu yow di nuyu ñëpp. di nuyu Baba bi nga xam ne moom moo nekk ci cadrage bi. nekk nit ku am jom. Ah. nekk nit ku personnalité nekk nit ku valeur. Hmm. nekk nit koo xam te nit ku diw la. noppi waaw borom gaa dañuy taxal loxoom rek. waaw <laughs> nu tudd fa ñu demoon ca dëkk ba dëkk bi ñu génn yàggul dara. Sèbi Koutaar jànge na fa. Ah. jàng daara waaw nekk dëkk Louga tamit. ndeysaan jërëjëf Jara.